contentement bu mag teew fi comme ni ko sunu père Max waxee rek c'est pas la première fois lamb di woté waye sal bi lamb mosu fee woote tay ji tej nañu stade de l'amitié tej nañu stade Demba Diop tej nañu stade stadium ibomar Mar Diop kon ben stade bi rek lañu déssé nañ leen ko fonk parce que stade bi mom buñ ko tejé moy lamb tëj na kon ñi ngi lancer appel bobu rek képp kuy supporter rek nga bàyyi xel loolu bàyyi xel ni estade bi rek la ñu dese muy arène nationale te moom mooy sunu vision en or. Mhm. mbokk yi ñu ngi nuyu bu baax Père Max di nuyu Fallou Ndiaye le promoteur numéro un. Mhm. Fallou Ndiaye yàgg nañoo woo ci bis bu mag. waaw c'est pas la premier fois mu ñuy woo fii ci arène nationale. Mhm. woo nañu cee Sadium Iba Mar Diop ci bis yoo xamante ni dootuñu ko fàtte. kon tey bu ñu indilee ki nga xamante ni moom mooy Gros Seras ak Ndiaye Tine indil nañu combat bu mag. spécial bi mu teg ci alliance Biram ak bekkaay kon Fallou Ndiaye yàgg nañoo woo ci bés bu mag. bés boobu yaa yàlla nañ ci am réussite totale. Mor bu parcelle ñu ngi lay nuyu bu baax Mor Diouf Modou Baye Fall di nuyu assistance bi yëpp. di leen xamal ni bés boobu nañ leen ko waajal bésu le 19 novembre fii ci biir arène nationale ak Fallou Ndiaye le promoteur numéro un ku ñëw di nga bëgg nga gis culture ku ñëw di nga gis bëre ndax ñaari xale yi ñu boole ñaari ndaanaan lañu fa la Giro Seras bi muy mujjee fi nga xamante ni moom mooy euh, stadium Iba Mar Diop lu rëy la fa def ki nga xamante ni moom mooy Ndiaye Tine bi muy mujjee stadium Iba Mar Diop lu rëy la fa def mbokk yi kon bés boobu yal na nañ ko fekkee yàlla nañ ko tal te yàlla defal nu ci ndam léegi moo daan ta ñu ngi jëm ci ñaari xale yoo xamante ni espoir lañu. le 17 waaw le 17 le 17 décembre Modou Baye Fall moo woote moom tamit yàgg nañoo woo ci bés bu mag sook bu ndaw la ñu indil ak Talfa ñaari ndaanaan soo bu ndaw laaj naa ko lu tax nga jël Talfa nee na ma damaa bëgg a egg ci samay morom egg ndax Talfa ndaanaan la alliance Birame ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu Bekaay Bekaay doomu parcelle bi. moo moo doonte. moo doonte kon bés baa ngi noonu. waaw bésu le 19 novembre incha allah. alliance biram ñu bàyyi la nga nuyu waaw gannaaw baatu onze billah bismillah inna wala yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba eh, yàlla te mooy borom dëgg moo fi jox Bamba dëgg daal di signé Bamba ne wasalaamun waaw ah, gannaaw bañ sant yàlla julli sa yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur xam nga di wax suma yaay yàlla na ko suñu borom a àjjana fi mu ak booleem jullit bu fa fekk suma papa yàgg ci loolu fa fekk suma njëriñ di siyaare suma sëriñ suma wasila Serigne Bassirou Fall alxuraan di wax yàlla nañu suñu borom taas si leeram di siyaare njabootam bi mu fi bàyyi xalifa bi muy Serigne Gounda Fall mu Cheikh Bassirou Fall alxuraan ak booleen njabootu maam Serigne Fall bi yëpp di siyaare njabootu Serigne Touba bi kilifa diine yi fi nekk yëpp suñu maam xam di siyaare njabootu Mbaye Laay bi maam Limaamu Laay bi njabootu sëñ Babacar di siyaare bépp kilifa diine di siyaare waa kër Serigne Fall Cheikh Serigne maa ngi koy siyaare bu baax Cheikh Samsiri borom Casamance borom bina ko Serif ma ngi koy siyaare bu baax baax rek sama ay coono la wax te difa yalla ya ngi nuyoo rek moom lay sànni ay béjjën. bàyyi la nga ak ñi lay auzu bismillah inna borom borom borom borom daal sama xam xam Grand xam nga di nuyu sama waa dëkk waa Casamance di leen baal di mën góor mbaa sant mbaa jëlee la ak di maay commencé rek. Hmm. xam nga 19 novembre allah alliance biiram la Assane maa koy diwaan bi ñu njamo ko Bungili waaw ko Bagadaaji ko ko ko Kolda maa koy diwaan fan saa booy incha allah la kon daa booy na waaw. ok di nuyu waa parti yëpp di nuyu waa ñëpp daal di nuyu àdduna. waxal ci kaw békaay. di nuyu àdduna. di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak xam nga di nuyu xam nga di nuyu sama adversaire alliance biram di nga ne champion la xam nga daa am lu fi def moo tax ma jël ko bu dawul woon dara ma ko jël champion la dina naan jàmm ba jour insha allah mooy booy bi mi ngi lay yaa ngi nuyoo mu lay sànni ay béjjën rek waaw yooyu ñu wax ñun yëpp garaawul ay béjjën ak dund ay taalu Serigne Touba lañ ñun ay ndong lañ yooyu moom amul problème pour ñun quoi xam nga mais avant tout tamit damay siyaare bi nga xam ne fa laa dëkk muy yëmbal waaw képp kuy doomu yëmbal maa ngi lay siyaare bu baax waa jàmm waa waa yëmbal waa Samsal waa Tilikaro xamal ma la waa Farba ñi nga xam ne fa laa yeewoo ak su ma mbokk sama dëkk Bawal rawatina Bambey bi nga xam ne fa laa yeewoo waaw muy Bambey Taax waa Batal waa Ngoy Aliou Sy xam nga di siyaare waa Baari Ndondol siyaare waa Koukaar waa Diohine xam nga di siyaare ñëpp léegi lan ngay wax euh, Bécaye ak lan moo tax nga jël Bécaye non làmb la rek xam làmb moom làmb rek la mën a baaxoo jël Bécaye pour man amul fee la bu kurgee wax dëgg am na feekay ndax booy bi dafa doy waar. wallaahi azim fii mu teg làmb ji nii fi mu teg làmb ji. non moom xam na man xam naa fi mu teg làmb ji yaakaar ne mooy làmb ji mi ngi nax boppam. parce que booy bi exploit yu garaaw la def. waaw waaw waaw kan kii moo daan makiyaar. waaw yow waaw yow mooy makiyaar. loolu yow moom sax ay kii moo daan waaw yow mu rafet mu rafet mu rafet. waaw yow si làmb nga nekk yow xam nga xam nga bu baax. te xam nga ne man ñi ma daan kenn rek kenn rek kenn ki ma fi daan rek kenn ki ma daan xam nga kii jëlewul sax ñu daan. kii ñu mu daan bàyyi nañ. mooy caa bàyyiwul de. mooy caa daan fii ak kii bi yàgg fii ak kii na lim daan kii moo daan wës jàmbaar. kii moo mujjul si làmb. moo daan béytin si ñoom moo mujjul si làmb. muy dugg si làmb. combat bu moom mujjee seeraan barki démb rek def na sept ans. muy ban moom moo booy caa. combat boobu noonu maa Iba Mar Diop maa ngi caa. ku la ci làmb moo la ko expérience. barki alxuraan bu fekkee amul yàlla mu mën a daan a daan kii xam nga lan laa koy lan moo dugal lan kii bu taxawee naan ay Maguus Jàmbaar nee na boobu xale la Maguus Jàmbaar dafa boo yow bu dee boobu xale nga kon yow amatul. yaa ngi bëri na bëri na combat maa dund. loolu yaa ko waaw. booy bu taxee man benn année mën alliance na tapal dugal ñu jëm nga tapal combat dafa am solo man wala bëriwul. man la laa lay wax léegi courage bu amaatee ma dégg li courage bu may na ko yàlla. booy yooyu yëpp garaawul na ma arnaque man bu ma arnaqué ma bàyyi sama yaram xam nga lu la wax man ba ñu ma ku ma arnaqué yow booy yow danaa kontaan noonu bi ma la sànq laa eh, boo xam ne da nga koy ñoddi loolu xam nga waaw du ma gërëm garaawul daal nga Serigne Touba laa mënu ma doon gërëm mais daa am benn affaire boo xam ne da nga koy ñoddi li ngeen di ñoddi li ngeen di ñoddi noonu fii eh. bu ñu dajee si benn baat ñu ne seen na li ngay jaar mën ngay jaar de bokk wóor na alxuraan ne leen mooy dama toog ak sama sang Mbacke Balla dem di ko siyaare ji dañ ma daan woo chaque jour téléphone di ma saaga ndey garaawul mun naa ko seere moom kii taskat kër la kii taskat kër la kii man man man kii ma lu ma war a def si kii ma la maa ngi moom la li may wax ba pare quoi daf ma metti moom kese muy wax garaawul waaw mais kenn di déglante xam nga li may wax nii daf ma metti bala bu ma de barki maam Thierno Mbacke dama toog ak sama sang Mbacke Balla ñu toog man ak moom téléphone chaque jour dañ ma daan woo téléphone di ma saaga garaawul mun naa ko gérer ma toog ak Mbacke Balla ñu may saaga muy reetaan si suuf ma koy xamal comme saaga yi ñu may saaga ñu may saaga xaw ma leen mais moom ñu ngi nii ngi nii barke alxuraan bu karim bu ma saagaa muy làmb wala làmb dama koy lekk barke maam Cheikh Mbacke ñu ngi waaw sa saaga laay xaar mais saaga booy ngay jox téléphone ñu may saaga xaaruma ko yow sa saaga laay xaar. boobu ba léegi maa ngi la koy wax. dëgg la waaw waaw xam nga biir boo ma saaga am na yow muy tàngoor bu làmb dama lay lekk wut na borom baax. yow mun neex wax yow saaga dama lay duma. loolu dara yaa xam ne dafa nànk rek. mun na ko mun na ko def. da ngeen di woote téléphone di def loo xam ne duñ jàkkaarloo doo ko def kon jarul nga koy def. comme buñ jàkkaarloo ma ne yow dama saaga kon jarul ngeen di woote téléphone di saaga saaga ma yaa ngi kii tas. billahi wallahi muy lamb wala mu kii tas. bàyyi leen ba lamb ja ba suuf yow yow yow kii kii bu bu taxawee naan wala saaga léegi man wala saaga. man maa rasee samay waajur man maa rasee samay waajur dama saaga kenn. woote leen woote leen. boo déggee sa boor ma lay neexal ak kéem neexal sut teg bësël bësël bi arrête maa la mun fuuf yow champion bu toll ni alliance biram nga naan ko dëggal sa bopp eh maa la kii alliance bi nee na nga dëggal sa bopp man dama yor man man mos maa gis ma bëri télé eh. booy booy yow xamoo ko de yow li ngay yaakaar yow làmb lu ñu wax ko dem na da kay woote booy ñëpp xamee nañ la wax yow del wax del war may da kay woote jaajëf woote woote waaw waaw di lu fi wax nag xam ah bu jubee si yàlla bu dëggee rek suñu nag ñun suñu mata di la quoi waaw dañoo bëgg maanaam jaay journée bi rek mooy loolu année adversaire la comme adversaire yëpp xam nga borom baax mooy loolu di ñaan yàlla nag yàlla ma yàlla may ndam si kawam di woo sama waa dëkk waa Casamance xam nga waa Kallaaw waa Binaaw Sérif lu woo lu muy diwoo xëy yow dëkkul Casamance maa dëkk Casamance xam fa dara xam di woo ñëpp di woo waa Parcelles Cambérène di di woo. Eh, eh, baatoo yàq yàq waaw waaw sa bopp <laughs> di woo ñëpp. waaw Cambérène Liberté na gaaw am na bu maa ngi teg humanisation si loxo waa Liberté 4 yëpp waa waa 100% PA bi mbooloo moo doon passé Cambérène numéro 2 Grand Médine 100% Grand Médine xam nga woo ñu may jàppale Malick Ndour ki mel ni ministre de la jeunesse Malick Ndour Pape Malick Ndour maa ngi woo bu baax a baax a ñoom ñëpp. waaw ñooñu deux deux cent bolo ngeen koy jëndee ñu ngi koy jox waaw moo damay woo ñu ma nuyu ñu xam ne sama waa benn rawatina waa Formal xamal ma la waa Formal maa ngi woo bu baax a baax a baax. maa ngi woo waa Formal bu baax a baax a baax a baax a baax xam nga rawatina président Formal muy Boubacar Dramé suñu grand Assane Mbaye xamal ma la suñu papa Thierno Diouf. ñu ko koy woo bu baax ak a joon xam nga ma la di wax autorité yëmbali ko lool lool fii lamb ko bàyyi dafa metti da ngay bëri say combat say boo ñëw lay defal sa lépp moo man ni mañ tuuti mais que lundi la lundi la 14 ñu si woo ñëpp tamit xam nga di siyaare waa Farba bi nga dëgg bi nga xam ne fa xam nga waa jàmb réew waa Tëso waa waa teen bi xam nga lu ma la waa naataange maa ngi leen woo bu baax xam nga lu ma la nii non ñëw leen Lamine boo leen ñëwee doo leen ko ñëw leen boo yi ñoo ne ko ñi nga xamante ne tey li fi am ni tey berso bu fànn barki alquran yow taxi ngay